arbitre baa noonu ci diggi géew bi journée Dieye dimanche 13 février ci diggante Liss Ndiago ak ki nga xamante ni nii mooy Tapha Mbeur Liss Ndiago bi fi mujjee Ada Fass a ko daan bolo boog bi fi mujj Ada Fass a ko daan Liss bi fi mujj moo daan ki nga xamante ni mooy Thiatou Rebeuss ku ci nekk ñoom ñaar am nga benn avertissement arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na Tapha mbër laaj na ki nga xamante ne mooy Liss bàyyi ji li gis nga ñaari mbër yi Tapha Mbeur la mooy avantage am ci làmb ji kii liis Ndiago la mooy avantage am ci làmb ji bàyyi ji li waaw Ousseyn ñoom ñaar ku ci nekk dafa am lu nekk sa mënin Liss Ndiago tay su doon maay moom damay jàppanteeg Tapha Mbeur bëre wuureeg moom ci bëre ba nax ko Liss Ndiago tey avantage am du woon xeex ak Tapha dafa Tapha a ngi arrière xaw ma na lu muy arrière Tapha Mbeur arrière na génn saako yi sortie délibérée la def loolu nag am na lu ko ci règlement bi wax mbëri nañu bàyyi tegtal bu bari bi ndax tegtal bu bari mën naa yàq làmbam Tapha fi mu toll ni mooy bëre te pour mu may booy bi confiance mooy mu won ko dama laa ragal booy bi agressé ko dox ci ko am bëre Tapha Mbeur daa avantage am mooy mu jéem a xeexal Liss Ndiago jàppante ak moom en tout ñoom ñaar ku ci nekk pare na combat bi na combat bi Ousseyn te combat a gaaw lay doon. Tapha Mbeur na Liss wala boog Liss jàpp na Tapha Mbeur abi sëb la door na moom Tapha dooraan na door na ko mu daanu Tapha door na Liss ñaar ko mu daanu. bett na ma oh! Tapha door na ko ñaari door ko door bu mujj bi du yoon Ousseyn Tapha door na ko mu daanu mais da koo door mu daanu mu dooraat ko loolu rafetul ci làmb. rafetul ci làmb da koo kaaw xoolal supporter yi xoolal supporter dafa xoolal lii dafa ñaaw xoolal supporter yi ña ngay toj siège ya xoolal lii dafa am dafa ëpp doole lii supporter yi. lii dafa ñaaw dafa ëpp doole. dafa ñaaw Ousseyn tey wax naa la ko. tek bi dafa am indi ci làmb ji. loolu moo doon làmbam. dafa am tey.